asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Laye Dibir TV ñu ngi leen di nuyu di ñaan ngeen abonné te bu leen fàttee bas cloche bi cloche de notification yi bu ko defee ngeen mën a jot suñu vidéo incha allah programme bu Laye Dibir TV nag ni ngeen ko xamee incha allah ci kanam moo dàq mooy groupe la ko wax ne am na ay dars am na ay waxtaan yoo xam ne day jëm ci way dencante yi waaye tamit am na waxtaan yoo xamante ne tamit day jëm ci suñu wàllu àdduna waaye yoo xam ne jëm ci wàllu diine macha allah amna na ay dars tamit comme ni ngeen ko xamee gis aji ma amna na dars tawhid bi fi am ak Cheikh Mourtala ñang yalla ko yalla sam tay yi nañu ba am ak ben bëgg am ben plateau spécial bo xamante ni ñu ngi koy cheikh ak oustaz euh mohammed Gueye wala bokk oustaz Cheikh nek fa lay ci kër uh, Moussa yité daara ji wax Abdoulaye Ibn mas'ud ki ko naata daal mu Cheikh Saleh jaay inshallah ba ci kanamee tout rek côté 18h inshallah and rek lay doon nak fi ci Lantibir TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته